Abdoulaye Wade juddu 29 mai 1926 ca Kébémer nekk homme d'état sénégalais soxnaam di ab française di Viviane Vert mu am ñaari bant di Karim Meïssa Wade juddu ci 1968 ak Sindiély Wade juddu ci atum 1972 mu nekk chef bu parti démocratique sénégalais nekkoon candidat ci élection présidentielle yu 1978 1983 1988 1993 président de la république bu Sénégal ci 1er avril 2000 jàpp 2 avril 2012 ci premier mandat maître Abdoulaye Wade dafa modifier constitution bi daal di kay def quinquennat catum 2001 ñu tabbaat ko pour un deuxième mandat wu juróomi at ci élection présidentielle bu 2007 mu daal di indiwaat li nga xamante ni mooy septennat bi catum 2008 mu daal di nekkaat candidat pour troisième mandat bu élection présidentielle bu 2012 mais mu jëntal ga kile Faye di ancien premier ministre am moo ko gagné di Macky Sall wuutu ko ci boppu réewu Sénégal maître Abdoulaye Wade li mu participer ci élection présidentielle fii ci Sénégal kenn defu ko ca 1947 mu daal di am diplôme de fin d'études ce école normal William Ponty ba nekk ca Sébikotane nekkoon institut colonial bi nga xamante ni fa lañ doon formé ay cadre administration file ci Afrique sowu jant ca 1951 jàpp 1952 mu daal di def cursus mathématique ca France ca atum 1952 jàpp nekk ca faculté des sciences ak ca faculté des lettres ak tamit ca école libre de droit bu Besançon après mu nekkoon avocat stagiaire ca barreau bu Besançon am tamit doctorat ci wàllum droit ak sciences économiques ca université bu Grenoble gannaaw ab stage ñaari at Abdoulaye Wade ñibbi si Sénégal tàmbalee plaider ci barreau bu Dakar Dakar doon jàngale tamit ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar Abdoulaye Wade bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoo doon plaideel kile di Mamadou Dia ba sax mu jëntal ga dañu ko daal di condamné woon à perpétuité parce que kile di Léopold Sédar Senghor moo ne woon Mamadou Dia Valdiodio Ndiaye Ibrahima Sarr Joseph Mbaye ak Alioune Tall dañ doon préparé ab coup d'état catu 1973 Abdoulaye nekk responsable local ci biir Union progressiste sénégalaise sénégalaise at ma ca topp ci la formé parti démocratique sénégalais avant ñu koy tabb ci assemblée nationale ci 15 mai 1993 Abdoulaye Wade ak yeneen ñetti nit yu bokk ci partem ñu teg leen loxo parce que dañ leen soupçonné woon ci assassinat bu maître Babacar Seye nekkoon président bu conseil constitutionnel même mu jëntal ga sax dañ leen daal di libéré Abdoulaye Wade gannaaw ba mu amee ñaari mandat ci bopp réewu Sénégal sampaat ndëndam pour ñetteeli mandat ba loolu amee coow li bari ay mouvement populaire yu bari juddu comme M23 ba ay nit ñàkk ci seen bakkan mujjantal ga kile di Abdoulaye Wade dañu ko dal di gañe ki ko gañee eh, di kile di Macky Sall ci 25 mars 2012 Wade daal di félicité kile di président Macky Sall jóge ci boppu réewu Sénégal ci 2 avril 2012 ngir daal di màggal ku ni mel nga xamante ni def na jéego yu am solo ci histoire politique bu Sénégal moo waral stade bu Sénégal bu bees bi ñu daal di koy dippee maître Abdoulaye wadd mu nekk geste boo xamante ni président Sall moo ko def sénégalais yu bari di ko rafetlu parce que jàpp nañ ne maître Abdoulaye Wade mérité na hommage bu ni mel